Find ay ci jërë ngeen jëf euh, jërëjëf euh, Abdoulaye Diop euh, jërëjëf l'homme passe a Yacine Pouy maa ngi lay nuyu Mame Dieye ak Fall sama waa ji maa ngi lay kontaane bu baax équipe bi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw laa doon nuyu noonu di nuyu ñiy déglu RFM 94 point 0 waaye di kontaan ci ñi nga xam ne ñoo ñu bàyyi xel ci suñu page Facebook RFM l'officiel di xaar Mamadou Mohamed Ndiaye mu yegg si waaye laata mu yegg si ma baan baan salaamaaleykum. waaleykum salaam sama waa ji maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar. ñëpp ñi nga xam ni ngi déglu rek euh, Ndiaye ñëwagul ba léegi waaw euh, di ziar ñëpp ñi nga xam ni ngi déglu. Mhm. ak fuñ ci mënti nekk rek di leen ñaanal jàmm. waaw yal na yàlla def jàmm ci réew mi ñëpp am jàmm kër yi am jàmm néegi am jàmm mbedd yi am jàmm bërëb bu liggéeykaay yi am jàmm. abaa waaw oto yeeg yëpp am jàmm tali yi am jàmm. yal na jàmm yàgg. Sénégal jàmm ñu yëpp. amiin yàlla na yàlla yokk sutura si. yàlla muccal ñëpp. ku ni amin yàlla na la dal ku ni amin yàlla na la dal ñu mu fekk muy nelaw sax suñu yeewoo yàlla nañu yeewoo ak jàmm. ñaan gi euh, ba si ñi nga xam ne dañoo tëdd nelaw. bu yeewoo suñu yeewoo. fekk ñu bàyyi leen seen ñaan. jël ko ok yàlla na jàmm ci nelaw yi sax nañ fa am jàmm ba yeewoo. yàlla na jàmm yàgg. amiin ñu ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax Ababacar. ngeen def ak coono yi. sant sant bu baax maa ngi nuyu Ndoye Bane. waaw ñu ngi lay ziar sama xel dafa dal. Ah. waaw léegi la relève assurée mën ngeen a demal seen bopp. alors <laughs> man waaw ñi ngeen def nii na mën ngeen a demal seen bopp. <laughs> yow Bane <laughs> yow kii euh, Mamadou Mamadou Ndiaye. waaw yow day at mi euh, six mois yi ngay ñëw yeneen six mois demal suñu bopp. ah kon moom baax na de la doon ñaan. ay ci noonu vaar na. léegi ba ñu. ñan ñooy sa rakk. kan kan. na ko yar say rakk ba ñu mën demal seen bopp. Bane kii kan la non yow lay yow man euh, fi ñu toll nii euh, xalaas bi euh, njëkk lu mu wax. wala Ndiaye camion lay waxal noonu xalaas bi njëkk lu mu wax wala Ndiaye ñu dem ci partenaires yi xam naa ni Erfa moom mu ngi ci biir kër gi ak waa kër Serigne Touba Fall et frère. mi ngi ci réew mi yëpp. Mhm. mi ngi ci réew mi yëpp Erfa waa réew mi jëlante ak moom ndax xam nga sénégalais yi am nañ fulla am fulla goo xam ne lu baax moom kenn du leen ko wax ñaari yoon. donc moo tax ñu jëlante ak Erfa bu bees bii nga xamante ne ji Erfa mobile Halo 4 Pro. lu nit di wut ci téléphone rek mi ngi ci téléphone RFA bi mémoire 64 giga RAM 4 giga écran 6 virgule 53. Euh, moom la rek. moom la rek da ngay waaru quoi. tey la façon téléphone bu ne la yor euh, quatre caméras lay àndal seize mégapixels soixante dix mille lay jar euh, te li ci li ci gën a neex mooy dañ la koy garantir treize mois. treize mois at ak weer. ci ci ci at yooyu noonu mu defaraate la ko baa mu jox la beneen ma lay wax ne la maa ngi la doon wax ñoo xamante ne ji boo ko bëggee am ci réew mi fa ngay dem dem nga am na ñu ma la ñu nekk kolobaan tey jii damay wax ñi nga xamante ne ji kon bëgg nañu ko am bu ñu demee Sandaga Touba comme rue Ngalandou Diouf wala de wala boog SNDC rond point Petersen Touba Guy Mbind salle de vente wala GSM Kanji lay Kanji sama waaju baax Abdoulaye Euh, Carrefour électronique également mën nañ ko fa am mais également Jili Jili Fall waa kër Xaadim Rasul rue Valmy la nekk ah. suba dinaa ñëw ci ñi nga xamante ne ji dañoo soxla téléphone Exfa te nekk mhm. ca diwaanu Touba mhm. ana fan lañu ko mën a amee vite fait gaam la boo xamante ne ji établissement waa kër Serigne ci nawet bi la nit ñi gën a xamee seen njëriñ ndax vite fait cuuraayu bant la boo xam ne aba boo ko taalee foo ko mën di taal ci saal ci ëtt ci véranda la fa xet gu neex mhm. ñu ne déet na waaye ñu di teg ci benn pompe pompe bi leen di dàqale ay yoo ak benn crème boo xam ne dañu koy digal nit ñi ngir bu ñu ko jëndee bëgg a féexlu ci biti bu tàngee dañ ko ah. diw seen yaram rek ah. dem tëdd nelaw yoodu la jege yoodu leen jege te bu ñu yeewoo dañu mel ne mosu ñoo di benn crème ndax mm. amul benn effet secondaire boo xam ne dina ko def ci yaramu ko diw euh, ci kanam tudd dinaa leen jox parce que numéro yi daa xaw a làqu mm-hmm. di ah. jënte ay gis nga na yëfee def naa wuti téléphone eh, xeeti téléphone oh, mi ngi foofu bu baax a baax mais également Moustapha Fall. waaw mhm. ah, di nekk ci établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère. am na solo mu tënk am na solo waaw ku bëgg a déglu xalaas bi rek defal 3w point rfm point sn. wala nga dem suñu page Facebook RFM l'officiel. waaw. Mhm. fa la fa lay xewee de. fa xewee. waaw Aba semaine passée génnoon nañ fi ñëw fi euh, nii ci benn femme boo xam ne dafa feebaroon. Mhm. woote fi nee na moom si liggéey ba wàcc rek ku mu dajal soo ko. labate mu nangu. ngeen ànd. day ñëw këram di ko rëcc di jooy. Mhm. fu mu dem ñu ne ko moom gis xam na ni li muy def tayu mhm. xam na ni am lu nekk ci moom. ba yeneen it ba da da koy xiir sax muy xulug yaayam da koy xiir sax souvent muy jéppi doom ji ba koy bëgg di jam. Hmm? na doom waaw. léegi nag bi ñu ko waxee bi ñu ko jàllalee fii. Mhm. dafa am ñu bare bare bare bare yu taxaw. ni nañ ko indi mu faj ko. waaye xam nga doo jékki-jékki di jël doomu jaam du ko yóbbu fenn ndaxte ndaw si nekkul ci région yi la dëkk te magum jëmm la mhm. léegi bi ñu demee ba gis koo xam ni am nañ ci moom confiance doy ñu mu doy ñu mhm. ci lañ ko wax mu ñëw bi ñëwee mu jubali kër Passepartout Passepartout jël ko yóbbu ko ca sama waajoo di baara baara jël ko yóbbu ko fa nga xam ne fa lañ am yaakaar mhm. bañ ko fa yóbboo déngeen démb élément bi ba ko waaji tiimee di ko faj yamu doon wax am yu bari bari yoo xam sax wax nañ ko mais dafa ragloo dafa raglu neewoon ba mu ñibbee am na lu gën ci moom loo xam ne naa ngi naan la toll na ne korpañ te ñuul kukk mhm. xamul lan la mhm. ndaw boppam ba mu wéree moo moom moo waxal boppam nan déglu déglu ko maa fi jaaroon jamono yi wax leen sama soxla sama problème ngeen fajal ma ko yàlla def nag ngeen xaw ma oo ma boole mag benn sëriñ sëriñ dina ma faj te yàlla tax faj na ma it te yàlla tax ndax maa ñëw paa bi faj ma dindi lu ne ci man yëguma dara it li mu doon dind ci man yëpp yëguma ci dara dara dara dara bi affaire bi dañee ci man ba ma taxaw affaire bi mu génnee ci man ba taxaw ci ridu bi rawam bi mu ko lëma si bopp ba mel ni mël fa mu ne ma sëggal ma wax la ma sëgg mu wax ma mu ne ma waxal sëriñ bi na la sotti ndox mi saafara bi ci sa tànk yi pour nga bañati dem di njaalo taalal sama tànk yi ni sëriñ bi sottil ndox mi sottil ma ndox mi mu di ko bomb di dugg ginnaaw loolu yëpp may doogu dugg ci kër gi ma demee ba jël mbir du pa këpp bi bëggatuma dara si affaire yi sama yaram bi yëpp dee ma jóge fa ñu yéeg bi ma ma demee ba ci tournant escalier maa ngi daje kandaam bu mag foofu mu ngi sol lu weex parfum boo xamante ne kilifa bi daal dina yow ne di nga bàyyi ndaw si di nga xam ne li la fi indi moomu fi indi li la fi indi tey dangay ngay bàyyi ndaw si mu wax loolu man maa ko dégg de man nii di wax ak yéen am sama problème maa ko dégg ma yéeg dugg si bunt bi dugg nga ma toogal fi tàllal sa bopp paa bi commencé di wuy paa bi damaa teg loxo rek na eggu suuf teel ci suuf kon nga xam ne yàlla dinaa la jaarale ci loxo yu ne pour mu faj sa soxla sama feebar bii dama fajoo fajoo fajoo fajoo ba jeexal am na sëriñ bu nekkoon fii baaw rek nee na ma da ngay ñëw dinaa la faj mu ne ma dama lay faj ba mu wér mën na ko ci naka mu ne ma si ay condition mën na ko ci naka mu ne ma dañuy ci auberge ñu jël malikaan bu ñuul malikaan bu ñuul boobu laay takk si say bët ma sol préservatif ma sëyeeg yow su ma sëyeeg yow ma niru googu ci laay def yi ma ciy def mooy tàqale rab bi sa diggante yaag rab ki ma booleeg moom ma wax ko ko mu ne ma loolu du dëgg ma ne ko ñëwul waajaa ngi nii si auberge bi gëmu ko man maa jël waa ji yóbbu ko ci auberge ba sëriñ bi ne jëlal ko sambur ba ko foofu ni ko indi ma jënd préservatif mu jox ma ma génn dem oo ki ma booleeg moom ma ne ko demal sambur nangam di nga fa fekk sëriñ bi looy def fii sëriñ bi ne ko ah man tamit lu may def fii lu ne la may dund loolu lu ne di ma jaxaseeg sama yaay di ma jaxaseeg sama famille. mun ma dama sant mun a tëf mu jonkoon muy ñitti jënd na àndut ak deret àndut dara waaye dafa ñuul kuk kuk kuk ba pare foofu def pax sonn ma yëguma dara sama yaram waaye gannaaw yàlla gis naa ci sama bopp wér naa maa ngi nii ba ma jógee ci paa bi ba tey yëgatuma dara lu metti sama yaram ak xalaat ñaaw yi mu doon xalaat loo ak may toog dem di saami góor ñi dem di foo loolu yëpp xalaatatuma ko yëgatuma ko sama yaram maa ngi sant wér ak wérlu bu a baax a baax maa groupe xalaas bu baax macha allah yàlla loolu sax. ah doy na waar. Mm, mm. léegi moom wér na. Mm-hmm. na wér na wér na ba ñibbi na. daal film nii ba démb ñu ngi jokkoo moom mais daal la mu yëg yëgatu ko. te da def heure bu liggéey ba wàcc ci yoon wi wala muy dem fenn fu mu jaar am ko ko jël yóbbu. léegi sëriñ bi moom waxu ko ana lan moo taxoon mu mu doonoon am am am am neex a dëkkal. ndax nee na daf ko nee na ñeneen ñi rab a ko duggoon de di ko def loo loolu. Hmm? voilà est-ce que waaw rab bi tamit day jël jëmm keneen. <laughs> di ko def di ko di ko def yooyu xam naa rab bu rab bu bëgg lu baax la. rab moom lu ne mën na ko. rab yu raw rab yu comme saa laay léeg-léeg nga dajeeg rab bu mel ni laay jóg. dëgg la mu jël la yóbbu la. Hmm, ay loolu moom soo dajeeg laay rek xamal ne rab rab nga dajal. voilà xam nga baax na baax na comme comme. comme macha allah dimbali nañ ko. baax na ah, day na waar de. Hmm. ñibbi na de mi ngi ci jàmm ak salaam. Mm. ñu koy ñaanal rek yàlla na sax. waaye dëkk bi ñi ay nañ xel nag nañu bàyyi xel ci heure yi ñuy dox nañu bàyyi xel ci yi nga xam ni moom ah. la ñuy sol. Ah. Ah, yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel. parce que gis nga rab day bàyyi yoon moom day bañ a gis fu euh, moom benn yoon rek moom gisee yoon rek fa lay jaar. waaw loolu jël yére yi di leen fanaanal ci biti di leen fa weer. Mm-hmm. surtout surtout mm-hmm. njiitlaay yi. Mm-hmm. yi danaa nong ci njiit laay rek nga ñëw sol rek mu dugg la hmm? <laughs> nañ dem baan euh, xalaas bi nga ni kii lu mu wax. <laughs> waaw lu xew. non dara xewul xalaas bii. aywa yaa fi xew waay. <laughs> ban ban lu xalaas bi wax. ah Ndiaye. nga ne da sol soo ko weeree fu ne fanaan fa. jinne ji mën na ni nongu ca njiit laay rek. nga sol mu dugg. waaw dëgg la góor muy góor jigéen. mën na laa dugg duggee nu ne nag. moom ngay def lu ne. Hmm? parce que tey jii. vidéo yi soo ko gisee. nga xool bi ko waaj yi ñaanal. parce que man ñun man damay bëgg ay preuve ñu wala ñu bëgg ay preuve yi leer bi ko waaj yi ñaanal ni mu doon def moom ni mu doon def ba affaire bi génn ba mu ba mu mel ni ku am lu dafa mel ni lu am lu rocceeku ci moom mu mu mu jékki rek di yuux ba yàgg mu mel ni ku nelaw fa mu doon dóor ak fa mu doon dóor man soo xoolee da nga naan kii di ko dugg fii la ne. nga xam ne kii tii kii kii di wax nii nekkul. mu am fu muy dóor di ko dóor di ko dóor di ko dóor di ko dóor bàyyi ak mu dóor ko daal di tëdd nelaw. Ah, fu muy dóor mu am fu muy dóor. non non non non rajo bi leen ne. ah ba fu muy dóor daal kooku la doon dóor. <laughs> vidéo yi mu xam nga am na yoo xam ne kenn du ko wane waaw nañ dem ci xalaas bi ci topp kon. parce que ay xale ngeen. bu ñu nañ dem ci xalaas bi ci topp. Ndiaye xalaas bi topp ndax moo gën a garaaw Ndiaye. Hmm? kii mooy ñooñu ñëpp ragal rek. du paa bii di wax nii dafa am doom. doom ju góor. ah utal ko utal ko tur jàngal ko ba xale bi am ay diplôme am génn nekk ñi nga xam ne tey jii rek ñoom soo demee ñoo luy tëj ci kasa bi ñoom man daal dugg ma leen tudd soo leen mënee tudd nga tudd leen. ñaana de wax man kay su ma xamee. fa nga mën naa fa élément ci justice bi daal leen ne ñi gën a kawe. magistrat yi waaw. waaw man daal tudduma kenn waaye daal doom ji loolu la. magistrat la waaw doom ji loolu la. waaye daal dañoo dem doom ji nag ba mu takkee jabar 96 la woon ginnaaw yaayam. woon ginnaaw baayam woon ginnaaw fameem comme tudde taawam que ñëpp tout nekk kër jabar ji papa ji nee na ma jour ba ma nekk waa mais yow jàngal naa la dugal la fi defal la lépp mais weeru dee sax ba nga yegg ba nga laalanteeg man loxo mu yónnee ko cinquante mille mënu ko waa mi cinquante mille nga may yónnee depuis ba nga quatre-vingt-seize ba léegi xaw ma lan ba ba léegi nii mën ko da yor kër ma yor kër. loolu wax waaw déglul papa ji. maa ko jur bi mu am deux ans ba liggéey mu dugg école ma yar ko boole ko ak kin ma tudde ñoom ñaar ñoom laa boole ñu dugg lël ma yor ko yor ko yor ko ba ni mu amee entrée en sixième ba ni mu demee université en quatre seize lu mu soxla lu ne defal naa ko ñi mu doon àndal yépp xam na man yi defal naa ko parce que ordinateur portable dernier kii moom rek yaa ngi foofu moo ko am na ay waaw dëkk bi ma dëkk nii ay borom doon ànd ñoom di ñëw kër yëpp am na ñoo xam ni. moom ñeewul woon kenn daal. ba ba mu nekk étudiant. waaw. Eh, eh, moo ci ñoom demoon ba ni kii moom doon na wax yaa ngi man ñëwuma doomu patron yi parce que lu ma ko def lu ma ko laaj lu ne mu defal ma ko boobu mooy jënd ko ordinateur trois cent cinquante mille ordinateur portable moom moo ko amal ci yëpp yaa des enseignants yoo xam ne dañu mujj. ñi ko dàqal jàng fii lycée bu Mbàkke nii ñoom ñoo demandoo cité noonu ñooñu nan ma ñoom suñu boy bu doon defal yow dañ ko doon defal ñoo koy raw mais ay ay suñu c'est des enseignants volontaires enseignants lañ fi ah, ah. bu ma ne ana ana diw man leen ah diw de man seqatuma ak moom dara depuis deux ak li nga daj ci moom lépp lan moo la métti ci moom ba tax nga ñëw ci rajo bi. takk li mu takk jabar ñooñu. xaw ma lu ko def noonu mu féet ak ñoom. Euh, kii euh, cité résidence général bi nag Géejawaay. waaw. boobu foofu la féete léegi. 2016 ba léegi daa jaar bi wala daf fi yónnee un franc daf fi yónnee ñaari dërëm du wax ak ndeyam du wax ak baayam du wax ak benn mbokk même si mu tuddee doom taaw ah. bu ko woo téléphone du ko wuyu man bàyyam bu ma ko woo téléphone du ko wuyu yaayam bu ko woo téléphone du ko wuyu. kon daal li li ma ci yàpp moom yéen de seen doom la da ngeen a daj ci moom lu ne mu won leen ginnaaw ndax jigéen. waaw fu ma fu ma seetloo fu ne nag ah leneen ma jigéen moo ko def noom la ko jox dëgg la om yéen bu dëgg ak mbokk yépp nag lu sax sax lu ne daal lu ko woo lu ne du la wuyu. ñaanal lu jabar ki mu tuddee taam ak ki mu tuddee def ko sërëf yow noonu sama sama euh, doom bu jigéen bu mag bu ko du ko wuyu. kon daal moom lépp lu jëm ci wàllu ñi mu bokkal ndey ak bàyyi ñëpp daal. du ndey du bàyyi du kenn du mbokk du kenn ku sant sàll ku ne. léegi nag moom fan la féete kër kër goro ya la dem dëkk fa. kër kër goro ya la dem dëkk fa nangu la wutal jabar ji loo mënoo jël sa jabar yóbbu ko Tamba di fa nga fay liggéey ngay nekk ci ay restaurant am bàyyi sa jabar ci bu màggal jotee wala boo ko ay dem tëdd foofu ñu ne ñaanal jabar. Euh, nekk Dakar doo ko jaar say mbokk foofu même kër gi mu nekkoon waxaam bi ma ko ne année bi mu amee bac année bi mu amee bac ma ne ko demal sama kër nijaay bi nekk waxam nga dëkk foofu gis nga keroog ba mu amee nekk université ba léegi keroog la ko mu mu dem ba am licence def kii yëpp ba def euh, kii nu mu def euh, centre de formation judiciaire nekk takk jabar ma ne ko deux mil quinze deux mille quatorze deux mille quinze la takk jabar man ko yóbbu ko ba léegi ba léegi ñooñu noonu ah bu leen woo ñoo ko doon jox paase di ko dundal bu leen woo du du du leen wuyu bu bu bu am na ko fa dee kooku sax moo ko doon jox paas gaari ju ko ba léegi sama rakk bi topp ci man bi jigéen moom moo lijjanti certificat scolaire bi indi mbaaw en quatre vingt pour mu defaat système deux lijjanti carte beneen bulletin de naissance boo xam ne dañu rectifier sa date de naissance wàññi at yi pour mën a reprendre cycle primaire ah bi bi mu dee mu jógee Tamba joxe ko un franc te ñun man mi topp ci moom ray na ñaari nag joxe euh, sept cent kilos de riz un franc joxe wu ko mu ànd ak jabar ak rak euh, magu jabar yi ñëw un franc joxe bi ñu raagee ba raag. Hmm. mu jëf yi mujj na tàng bi ba ni ko daga yor kër ma yor kër ci la ko papa ji bàyyee mais papa ji dafa jàpp ni li doom ji di def nii tayu ko moo tax mu ci woote ndimbal nii. pour que dañoo jàpp ni daal daal dañ koo jox nopp waa kër jabar jee ko ko def ba li muy def teyu ko parce que doom bàyyi bu la taxawoo noonu moom doo ko wane ginnaaw nii. te ñoo bañ a bàkkaar. ah loolu da non ay dañoo foog rek xëy na ah dañoo foog rek dañoo foog des na de xaw ma nag dañuy xaar ba subaam déet. ah xool leen rek waaye tamit nga njaay. Hmm. def na de. lu góor sikk sikk sikk lu mu mel na leen mel ne leen bu sëyeeg soxna su baax da koy wëlbati pour muy demaat seen kër. wala biir famille waaw. mais soxna du bàyyi jabar baaxee waaw mais soxna du bàyyi boroom këram mu mel ni ku amul famille wala mel ni ku ku bokkul ci réew mi tamit loolu moom euh, du wax noot du wax dañ koo liggéey wala dara mais soxna su baax day fexe relation ak borom këram ak waa këram mu nekk lu ri tax loolu mooy jigéen loolu de moo koy may jàmm li koy firndeel mooy bu fekkente ne sax la tax waa ji wan leen ginnaaw jugewul ci famille soxna si terewul seenub dere gi yàqu maanaam li gën comme li nga wax nii bu gisee diggante xam ne lii rafetul mhm. la ca war mooy mu rafetal ko def ca lépp lu mu mën waaye xam nga aussi tamit àdduna looy def dafa am foo yam de. Uh-huh. ku la wax jéemu ko ku la wax la ca am dëgg dëgg dëgg paa bi di wax wax na ko. Uh-huh. Euh, ñu baal ma de mais képp koo xamante ne jii am nga doom. Uh-huh. comme ni ko paa bi waxee nga jaar ak moom fa nga war a jaar def ci moom li nga war a def mu xëy moom deful la mu war a def toogal ba koog yàlla. dina ci mm-hmm. def la war. Mm-hmm. beneen man li may wax mooy. dëgg la bépp góor bu fi won sa ginnaaw sa lay. wan ko wan ko ginnaaw sa baay wan ko ginnaaw sa famille. ndax jigéen ndax jigéen. Mm. bés dina ñëw nga dee. Mm. beneen góor toog sa place. nit loo yor loo am sa baay ko moom yow ak sa baay yow sa alal yëpp seen baay leen moom donc nit. su fekk fonk mbokkam waaw day fonk mbokkam fonk ndayam fonk baayam parce que tey su nu woon kën këndang dee ca kër góor a yooye ndayam ak baayam la ñuy woode ñu jébbal ko sunu borom ndaw sa toog quelque temps am beneen jëkkër. xamul Serigne Touba wax. lu mu wax. fonk leen mbokk bu leen ko mbokk mi jaralul it ne leen ko mbokk gi jaral. Hmm. waaw su leen ko mbokk mi. jaralul ne leen ko mbokk gi mbokk gi mbokk gi jaral. Hmm. waaw moo lool. Ndiaye li kiy wax ànd nga moom. waaw nee na bu subaa sa maire ami mën naa nekk sa ennemi piir waaw waaw nee na euh, bu subaa maanaam sa ki ngay sëyal nii tey jii mën naa gis keneen ànd ak moom dem wala mu gis leneen dem. waaw mais util xaalis boo yor ndax million bi nekk sa poos yaa moom lu la neex loolu nga ci def ànd nga ak moom. waaw waaw kon nañ jëm allo présidence kon. waaw waaw. coopère collaborateur de l'organisation du festival du président de la République ak ci palais de la République muy résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique si Dieu la quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama nekkal waxoon naa yàgg mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1960 80 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2000 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam ñamaat nu xaaral ni ba xam kii woote bëgg jot président de la République kooku kan la war doon ak fan lay woote salaamaaleykum allô oui bonjour oui bonjour ça va c'est Abdou Mbaye euh, l'ancien premier ministre c'est kan Abdoul Mbaye waaw. ça va def. Abdou Mbaye lan nga ni. Abdoul mbay l' ancien premier ministre. waaw neel Abdou Mbaye rek ancien moom amatul ay ancien premier ministre. non non xew xew yi neel man neel neel Abdou Mbaye. déglu ma écoutez écoutez écoutez déglu ma xew xewi ayut ñàkk xew mu ay. neel Abdou Mbaye critiqueur yow critiqueur rek nga fi nekk. non non loolu sa yoon nekkut ci. voilà non da ngay yem ci kuddu ñu roof la ci gayit voilà. écoutez écoutez. no maa lay laaj lan moo waral sa woote lan la. voilà voilà oh, voilà. boo ma dégluwul doo xam lan moo tax. may woote je suis vraiment en colère contre le président contre le gouvernement Macky Sall. loolu le gouvernement ne ne ne se même pas compte yow que tu es en colère yow. ah bon. ah oui bien sûr. voilà man j'ai pas de compte à te li ma am mooy wax ak président su fekkee mu ngi fi nga jox ma ko parce que yow xamoo sa bopp. président président dafa jàpp il est occupé. xanaa moom il est toujours occupé. parce que daf may daw parce que liggéey réew mi ko ñor. non non non daf may daw. daf may daw il a il a toujours peur waxtaan ak man. lim lay dawee yow xam nga koo war a waxtaanal. kan Bokar Samba Dieye ca ceeb ba. loolu sa yoon nekku ci mais mais écoutez écoutez il faut arrêter toujours di ma wax ay waxi Bocar Samba Dièye loolu man je l'ai aidé à être oh, milliardaire. Ah, voilà non non non déglu écoutez non non non non écoutez écoutez écoutez <laughs> moom mauvaise gestion la def ci alalam ba mu daanu mais papa man a toujours ngeen may wax ay Bocar Samba Dièye li ma am lu ma wax daal mooy que Macky il a mis la charrue avant le bœuf comme. la charrue avant le bœuf. tekki tekkil ma ko. yow tu as mis le bœuf avant le chariot. Ah, bien bien sûr. bien sûr wala après le chariot. non non non non non. non non il a mis la chance que waxal li la ma ne waxal li la tax a woote sinon ma coupé la. voilà non li tax may woote voilà moom laa lay wax il a mis la charrue avant le bœuf. parce que euh, li tax ma ne il a mis la charrue avant le bœuf. mbënn mi dafa taxawoon ci population Sénégal ne leen carrément dinañ def ay canalisation avant muy taw mais taluñu ko taluñu ko parce que dañuy jël ci alal bi di noos euh, voilà euh, di di pétrole ñu jël jaay def seen poste. jiko ñu jël jaay def seen biir poste dama ne ba ci ba ci géej géej yëpp lépp duñ ko bàyyi dañuy jaay def ci seen biir poste. Voilà. Mais ce que j'ai à vous dire, euh, euh, tous en colère contre lui. na leer mën mi ñoom li ko gën a indi ci lañ bokk ñoo ko tey écoutez noonu la demee ah allo. maa ngi lay déglu de yow lay déglu. allo makalla seen téléphone sax baaxul parce que ancien téléphone dafa nekkoon da ngeen ko débranché dem jaay ko def ci seen biir poche. ay téléphone yu année soixante ngeen fa teg. mani déglu ma. waaye. déglu ma yow waxal rek looy wax. li may wax nga wax ko. li may wax mooy que bu moytuwul population bi dinañ jóg dal ci kawam. waaw ah, c'est tout. ni ko waajal nag ah. ban population. parce que bu la Abdou Mbaye. oui Abdou Mbaye amoo la wuy ma votre correspondant peut-être.